TV. déplacés de nos logements de fonction alors que ces logements nous devons les occuper tout le temps de notre rotation et ce n'est pas le lieu de travail c'est notre logement de fonction ils nous ont envoyé une notification via le vice-président des opérations sur site. Et des bus sont déjà présents sur site. Et ces bus-là, ils avaient préparé cela depuis pratiquement une semaine. Ils étaient à Kédou. donc attendant le jour de la grève. C'est-à-dire eux, c'est eux qui voulaient la grève et ils l'ont eu. Et c'est de notre droit. Et parmi les forfaitures, il y a ici, sur site à Savodola, des centaines de travailleurs par des contrats intérimaires qui occupent des postes permanents. Et parmi eux, il y en a qui ont fait 5 ans sur ces postes-là, sans avoir la possibilité d'intégrer la société même. Et ça, c'est illégal. Ce n'est pas autorisé par la loi. Donc en voilà quelques lignes parmi les forfaits qu'ils ont, ont des... donc les restaurant da la lɛ tɛ restaurant la adun safelo men ni ngala su to kunani ngibari ya o ya wole la bara na ni osani to mo ni tenye jam donc ongo ben na d'accord mais se ongo wala munyale mais vidéo ni ke ko mumule bara nyogol ni nyamo ko men ata du la su ko la jam ko kasi au niveau national ka lon ka ko ande wor be bil momento masawa jam jam bali do mo grève nin dum si bari ngol la lon sénégalais be la lon ka sama ka ko sare yamo be mulle ka grève nin de ka sariyaŋo ka nama meŋ ka sariyaŋo le fo ala si adama ma préavis ya de grève ya nin déposé ya ta inspection na moins de mois de juin tili bi sabo donc délai légal mo tili bi sabo le to benn mois de juillet tili bi sabo na délégué to tala de tambila donc fop tili foro bon on ba on dunni a si a manqué sabo la jam fo ka bula dakar la be manqué ko na bodo sarala mana nu ko riyo le grève baro la lo baro la lo ni mo mo wole ಮಲಿದುಮಲ್ಲೋತಿ ಓಲೆ ಯಾಡು ಮುಗಾಲಿ jande français to ani man nga woni o moto bela lo nga siama senegal bela lo nga siama bara nyongo te fe fe kan be jamba jawani dula mo al gal ba mu ya ja donc mo jare son de o tete masawa tamala wassalam aktiviste bu buri jot nañ ci li ñuy def li def kon bu yaq suñu guerre bu yaq bu yaq bu sama yàlla am ñu ndam de am nañu ndam lu leer naa doon wax donc nañu teg def focus ton yu ñu sàcc ñu lu ñu sàcc la ñu jël dañu koy delloo su ko sàcc dañ lay daax góor na moo yombul na quoi góor yombul. 2021 la ñu waxoon lépp la 16 la ñu dem. 16 la ñu dem gars yi gars yi ngeen ñëw. leen Nous avons une délégation pour Dakar pour nous amal foofu waxtaan ak mais pratiquement nous avons fini de faire foofu lañ taxaw ñu dem une notification de grève Nous yoon sax may nañu di suñu préavis jeexee ñu grève mais juste pour nous leen ñun est animé de bonne foi nous avons déposé une notification pour xamal leen ne dañuy dem grève ñu demandé à ce que nous suspendre pour nous prolonger encore le temps. Maintenant, defal nañ leen aussi des contre-propositions mooy fexe ñoom ba nga xam ne dafa diisoon ci ñoom ñu oyofal leen ko mooy paiement yi nga xamante ne ñoom dañ ko waroon fay depuis 2016 ñu yombalal leen ko ne leen nañ ko commencé depuis 2021 bu dee cadre aussi ñu defal leen fa ay propositions yoo xamante ni vraiment kenn amul lu mu ciy teg mais jusqu'à présent ñoom fi ñu taxaw foofu lañ taxaw dafa mel ne rapport de force lañ taxaw lañ soxla moo tax na tey ñu décidé à partir de 20 heures ñu taxawal opération yépp sur ce nag ñuy wax bépp liggéeykat ne ñun li ñuy def dañ ko teg ci yoon moo tax dañu bëgg aussi ku nekk mu taxaw ci yoon mooy toj lawuñu kenn surtout une grande solidarité on s'en sortira incha allah parce que ñun dañoo tooj comme lu ñuy wax rek daanaka koy waxal mu ne du la dégglu ba pare bëgg moom nga wax mu wax moom nga dégg ko loolu du jafe la ku la tooñ jël sa àq ba pare bëgg yow nga respecté àqam du jafe la gars mais comme dëkku yoon lañ nekk nag ñun nañu tënku ci yoon rek nañ tënku ci yoon euh, wax ji daanaka normalement autorités yi ñoo ko war a lijjanti parce que mënoo jógee beneen dëkk ñëw fii bëgg a jël say euh, lu ñu naan say euh, say say politique bëgg ko aj ci kaw suñu suñu suñuy loi maanaam bëgg ko aj suñuy loi donc loolu mënuñu ko nangu donc jéem nañu jéem nañu pour am consensus waaye gis nañu daanaka ñii moom daanaka dañoo ŋot ngeen baal ma ci kàddu bi

amuñu droit en cas de grève ñukay def donc ñooñu tam ñu ngi profiter ci occasion bi pour dénoncer ko sous-traitants yi ñoom nañu téye seen élément buñu saboter suñu grève comme niñ ko niñ ko waxé suñu défé ba entreprise bi joxuñu suñu àq ñun ñoom dinañ leen top lolu ñom nañ ko xam donc euh, sur ce euh, El Hadj Malick soo amee loo ci sànni sànni incha allah salaamaaleykum ah, balaa may mu may ma balaa parce que voilà présent ici faire la liste des forfaitures de la direction de EGO, la Gold Operation, euh, filiale de Endeavor Mining, est en train de faire ici sur site. Parmi ces forfaitures, il y a les menaces et intimidations faites par le directeur général des ressources humaines via une vidéo qui circule actuellement sur site, qu'il a envoyée à tout le monde, nous menaçant et nous intimidant, alors qu'on est en train d'exercer notre droit. Ils ont fait une mobilisation de travailleurs intérimaires pour remplacer les travailleurs grévistes, alors que c'est illégal. La loi ne l'autorise pas. Parmi ces sociétés qu'ils ont mobilisées, il y a Transport Gay, il y a CDK Challenge et il y a Celo et d'autres entreprises que nous ne connaissons pas encore. Ils nous menacent aussi de nous déloger, nous les travailleurs grévistes, de nous déplacer de nos logements.